salaam les chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba na ci réew dañ leen koy indil tey nag fi nekk ñu ngi nekk yëmbal euh, la ñu nekk euh, moo nekk xew-xew bu doy waar boo xamante ne mu ngi amee fii ci quartier Moussa Sall euh, fi nga xam ne fi la amee précisément muy marché yëpp sa jëkkër kar koñ bu ñuy wax Passy xew-xew bi fi am nag muy dañ ne jur doom sànni mu mujj ñàkk ba kanam mu nekk lu doy waar lool ñu foogoon ne jeex na Sénégal waaye ba fi mu toll nii 2023 nit ñi ñu ngi jur doom di sànni ba du si ñàkk ba mu nekk xew-xew bu doy waar lool lool waaye ni mu demee moo doy waar moo waral tax tey ñu ñëw fi si yëmbal ndax jur sa doom mu mat sëkk tabarkàlla macha allah nga takk ba mu dëgër étouffé ko ñëw teg si ay mécanicien ba mu ñàkk ba kanam mu nekk xew-xew bu doy waar lool lool lool lu si mënti am dañuy xuus dugg fi nga xamante ne moom mooy yëmbal nord fi nga xamante ne mooy de a ñu fa yéenee laaj ñi nga xamante ne peut-être gis nañu saag bi wala fekkee nañu ko dem si chef de quartier bi dem si bàjjenu gox bi nu xool ndax lii mu ngi doog a am fii si gox bi di yëmbal de noox ah mu nekk xew-xew bu doy waar seex dag may topp ñu daal di xuus. garage mécanicien ñu ne fii la ñu sànni woon liir bi nga xamante ne dañ ko fi fekk. waaw fii lañ ko sànni woon fii moo taxaw nii. effectivement kii bu ñu ko laxasoon benn robb la ko laxasoon. ma ne moo takk deret ma ne ko lii bu dul nit dama jaax après si doon sotti sac bi. effectivement muy bébé ko mu nekk lu doy waar yooyu ay yan la. presque euh, jàpp dix-huit euh, ban presque après timis gi rek timis gi waaw timis gi rek bu ñuy nodd timis noonu euh, saa la nga ko gis. yow gis nga saag bi. waaw gis naa saag bi. ban genre saag la. saag bu mel ni lu mel ni lu karoy quoi comme saagu jigéen ña ñaari jàppukaay yi rek. saag yooyu la waaw saag genre mel service yi. waaw mu ko quoi genre moom dañu ko takk dañu ko def si lañ ko lëmës nan lañ ko nan ngeen fekkee non bébé koo dañ ko lëmas dañ ko lëmas ak jipp lañ ko lëmasee dañ ko lëmas ba mu daj doog a ibbi saag bi doog a tëj fermeture bi waaw noonu lañ ko fekkee ko fekk waaw ah, ba maa ko muur yi ba ma koy muur moom fekk naa mu ñàkk bakkanam. xale bi manqué wul. non manqué non manqué wul dara manqué wul dara ci waaw xale bu mat la xale bu wax dëgg yàlla mat la waaw. bu benn wala koo xamante ne ni dafa seet amul benn daal. non xale bi diggante bi mu juddoo ba ñu koy indi fii bu matee une heure temps wala une heure temps et quelque si lay yem parce que wasin bu bees la waaw liir bu bees la waaw liir bu bees la waaw. bi ko ubbee ba yem ko yow mi mu nekk fii sa garage mécanicien ñu teg ko si gannaaw oto mu mel ni jëye ju nekk mënoon na am ban yëg-yëg. non yow ma wax dëgg yàlla am sama àdduna tukki woon na waaw xamoon naa tukki parce que jur ak doom nu doom mel nga jur ko pare sànni ko laxas ko mu mel sànni. loolu moom wax dëgg ak keneen ku si mënoon yam ni ma réagi noonu ngay réagir wax dëgg yàlla na trop waaw métti na trop trop. mais bi ngeen gis ko yéen après. danoo mujj woo am benn sam benn waa yu ñëw fii moo mujj woo police moo woowee police après ñu woo sapeur si la ko ñëw jël si waaw noonu la demee waaw. après mu ñëw jël ko daal di yóbbu koor bi. waaw mu yóbbu koor bi waaw. xamu leen kan la jàppaguñu ko wala gisu leen ko. non wax dëgg yàlla moom xamuñu kan moo ko fi teg xamuñu góor la xamuñu jigéen moo ko fi teg waaw ñun daal ko si noonu la ko gisee rek mu nekk loo xamante lu oto. waaw loolu moom man moom dama ko daa dégg rek waaye wax dëgg yàlla mosuma gëm ne nit dina jur sa doom ba pare laxas sànni ko loolu moom dama ko ne mais c'est première fois moo gis loolu moom. waaw loolu moom dama ko doon dégg rek mais yaakaaruma woon ne loolu nit ñi me ñi mel loolu waaw mais noonu la demee. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si thème def nga ko ngeen waar lool lool ñu daal di fas yéene xuus rek peut-être dugg dem fi nga xamante ne mooy si chef de quartier bi wala wala si bàjjenu gox bi man message ngay lancé. waaw ah, message bi may lancé mooy jigéen moom boo demee ba yàlla def moom bëgg def lu la neex bu am si doom sosu si moom war nga koo mën a garder parce que moo gën rey bi quoi ay moom mooy dernière solution loolu ñaaw na trop loolu moom rafetlu ma ko waaw ñoom ñaaw na baax na voilà mbokki téléspectateurs yi gannaaw ba ñu jugee fa nga xam ne fa la jëye ji am foofu si xamante mooy marché yëpp sa jëkka quartier boobu nga xamante ne mooy quartier bi ñu nekk nii ba tey muy quartier Moussa sàll nga xamante ne moom mooy chef de quartier bi nañu fii nga xam ne moom mooy si këram ndax dañ ne kër boo fa demee si buntu bi ngay jaar te gannaaw bi xew-xew boobu amee fii si koñam euh, mu nekk xew-xew boo xam ne bu doy waar lool lool lool la moom mi nga xam mooy chef de quartier moom lañu ñu fas yéene ñëw dugg xool mu wax ñu nan la yëgee xew-xew boobu nga xamante ne moo dal si quartier bi le maa ngi leen di fay. te sa TV daf la ñëw seet si gannaaw xew-xew bi nga xam ne moo am bërki démb fii nga xam ne mooy sa gox bi mu nekk xew-xew bu doy waar jur doom lëmas ba mu jekk ñëw sànni si garage bu mécanicien yi bañ fa jógee ñu ne dañuy ñëw seet si chef de quartier bi noo jegee xew-xew bi. dañoo sànni fi benn liir léegi nag alors police nga fa ak euh, euh, kii ak euh, pompier bi pompier ak police ña nga fa parce bi ñu sànnee affaire bi mécanicien yooyu. ñoom ñoo téléphoné ñoo woo sapeur ak police man bi ma ñëwee falaa leen fekk ma fekk aussi liir bi ñu ngi ko tëral alors ñu bàjjenu gox bi aussi ma fekk fa ak sage-femme bi maternité indi yooyu ñuy peese liir ñu koy pesé alors biñ ko tegee ñu pesé ko ñu ni liir bi mat na alors ci saaku nag lañu lañ ko dugaloon ko ci bi ba tëre ko noonu alors ma ma koy xool jotuma seetlu ndax góor la wala jigéen man dama ni ko tëral na ay ci mbagg yaram ki mi ngi taxaw koy la ñu ni dañ ko yóbbu hôpital dalal jàmm foofu lañ ko mujj yóbbu waaw alors léegi eh, ñu nekk fa bon añi ñu naan ñu def dëkkul fii ndax ñoom en koy def dañ koy sànni ci quartier dëkkul ndax quartier bi dañuy leen di gaaw a gis waaw ñu ne en général boo wattuwul noonu lañ koy def jaan sànni ji ko ci beneen quartier alors foofu daal la pompier yi jëlee affaire yi daal ak ànd euh, jàmm yow bi nga ñëwee en tant que chef de quartier nga fekk xale bu ñu sànni ci gox nga xam ne moom ngay jiite bi nga ñëwee ba tiim ko ban yëg-yëg nga am ah xanaa muy lu doy waar rek vraiment mu ñu doon waaye parce que nit surtout xale liir juddu yi fa tabaarakallaahu mat man liir bi ma ko gisee sax sama yaram dafa daw parce que liir bu kilo la daal eh, daal xam nga ku mel lu mel noonu ñu jël ko ëmb ko ci saako sànni ko rafetul baaxul ah jigéen ñi koy def daal war nañu def du lu baax du lu rafet daal. war nañoo très très attention dellu ci gannaaw ci yooyu daal bañ koy def parce que loolu baaxul. yow ñaata at yaa ngi nekk fii chef de quartier bi. bon man maa ngi fi ñu ngi may élire fii comme délégué de quartier depuis 1992 léegi actuellement maa ngi ci 31 ans mu géré quartier bi waaw. est-ce que lu mel ni dafay faral di am. bon lu mel nii nag man musuma ko fee gis li ma fi mës a gis saaru nii la xaw a demee. mais bokk ak nii parce que kii dañ ko dama toog ba guddi encore benn euh, suñu benn dëkkandoo bu nekk fii ànd ak benn femme mu boot bi mu ñëwee euh, waa ji ni ma kii daal dafa ñëw fii nee dafa am benn këru sëriñ bu mu doon seet gisu ko mu bëgg fu fanaan ba suba bon ma ni ko ah maa ngi fii vraiment fi mu ne aw ma fi léeg bu liibar yow nag comme am nga néeg bu liibar yóbbu ko mu fanaan foofu ba suba ñu toppatoo affaire am mu daal di jël ñu ànd dem bi ñu demee eh, mu ñu defaral ko néeg mu eh, moog doom ji ñu defaral leen néeg ñu fanaan ji bi mu demee ba guddi ay fajar mu jóg defar liir bi ëmb ko ba mu jag mu teg ko ci diggu lal bi rek dem alors bi ñu xëyee nag mais ñu jël liir bi waa ji ñëw wax ma ko ñoo mën di fajar la ko ëmbu dem alors ñu door dem police def déclaration yi ak yooyu waa jooju ko defoon sax léegi gaañu na mais moom dafa cee mujj sax am lu ko metti la parce que <laughs> waakat bi xam nga ñu def ci am ñoo xam ne ay tooñkat lañu dañoo mujj naan bon liir bi moom waa ji moo ko jur liir kenn du ko yóbbul ku ko jurul <laughs> mujjee waaw liir boobu dal man bi ñu ko def déclaration police bi man ba defe naa ñi yor ñi clé liir daal defe naa ñoom lañ ko mujj jox booba na laa mujj a xam ci affaire bi. boobu tey sax boobu moo tane parce que kooku rayul. waaw boobu alhamdulilah baax boobu kay baax na parce que rayu ko kooku kay def moom wax dëgg yàlla baax na. Euh, loolu moo gën a di rey wala di ëmb di sànni. dëgg que kii yow bi nga ko gisee fekk na moom ñàkk na bakkanam liir bi. waaw fekk na ñàkk na bakkanam man fekk naa ñàkk na bakkanam parce que saako bi bu nekkoon même bu fekkoon ni sax dañ amul blessure wala defuñu ko dara saako bi ñu ko ëmb yeew ko ma ma mënu la continuer sans waaw fekk naa ko mu ñàkk bakkanam. léegi enquête baa ngi wéy jàppaguñu ki ko def. ah ba. enquête bi mu ngi wéy xamaguñu kan. waaw bu xamaguñu. parce que même inspecteur de police bi ñëwoon euh, xam nañu ko ñu ngi ko woo di ko laaj ndax ndaw si euh, feeñagul mu ni feeñagul. ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax gannaaw dara bu amee si koñ bu ñu ñëwee faaw ñu ñëw si chef de quartier bi te yaa jiite fii moo waroon tax tey set tv ñëw seet si la. jërëjëf ngi leen di leen yàlla ndax lii lu baax la ndax. Euh, danañu ci mën a informé wu ba mën a moytu yu demee nii daal. en tant que wajur ban appel ngay lancé pour sa njaboot yu jigéen ñi nga xam ne dañuy jëf-jëf ju mel nii en tant que doom. waaw waaw xanaa di dànkaafu rek parce que lii rafetul baaxul alors di leen di wax rek nañu moytu yu demee nii daal waaw wax dëgg yàlla eh, rek lañ ci man di leen wax nañu moytu yu ndewee nii yi rafetul baaxul. Hmm. voilà mu ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom El euh, Hadj Moussa. voilà mbokki téléspectateurs yi nañu ki nga xamante mooy chef euh, moom mi nga xamante ne moom mooy bàjjenu gox bi euh, tudd maire Ami Ndiaye ñu gën koo xam si Ami Ndeye Ndiaye. Jabel nekk bàjjenu gox bi nga xamante ne fii la xew-xew amee bàjjenu gox ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ci kàttanu yàlla di kontaan ci seen ñëw man maa ngi tudd bàjjan Ami Ndiaye ñu gën maa xam ci turu ndey Ndiaye Jabel. may service si maternité yëmbal bi ci yëmbal ci quartier bi mu xewee di mu Moussa Sall. d'accord dégg ngeen ko noonu moom bàjjanu gox li mu wax euh, xew-xew bu doy waar bi am fi nga xam ne moom mooy sa gox nan nga ko yëgee en tant que bàjjen. en tant que bàjjen jeudi boobu. Mhm. muy le 2 novembre. Mhm. dafa tàng jëpp. mu jàpp ma ba sama bopp di metti ma tëdd. sama sët daw ñëw. ne ma policiers yi nee nañu xanaa bàjjenu gox amu fi. Mhm. ma ne ko lu xew mu ne ma dafa am bébé bu ñu sànni ci marché bi. ma daal di jóg dem man rek la ñu bàyyi ma dugg ci biir bi ndax nit ñaa ngi fa fees del di seetaan ñu ñëw commandant moo ñëw ak ak ak uh, équipe am ma bàjjan lii de lañ fi gis ñu bëgg nga seet ko ma ne ko non man duma ko laal ndax uh, man askan wi laa fi newal waaye comme dama am responsable dama am patron muy délégué de quartier foog ma woo ko Euh, sama sa euh, maîtresse sage-femme foog ma woo ko noonu ci la yoon ba xool numéro bi mënuma ko gis ndax booba tiit naa ma daal woo benn femme nekk dawal wool ma délégué mu woo délégué ma daal woo sama maîtresse sage fam mu ànd ak euh, ambulancier bi ak ñaari sage-femme yi muy liggéeyal ñu ñëw ak gardien maternité bi ñu àndandoo ñëw ci noonu la ñu ubbi saak bi bi ñu ubbee saak bi ñu réamine ko réamine dóor def lu ne mu ne nem xale bi solo luñ ko yére lala luñ ko dara ci la ma ne bàjjan may ñu sër ma yëkkati sama kol bëgg ko jox mu ne ma noon dafa nilon ma daan ne ay waay jeeg ji fi ne jeeg ji taxaw di seetaan may leen ma sër femme bi nga xam ne mooy étage bi ko tiim daal di may sànni sër bu weex tal ñu daal di koy fekk benn jupe dong la te la ñu teg fekk ci saak bi moom lañu ñu lal te mi ko teg ci mbalit mi waaw bi ñu ñëwee nag ña fa nekk dañ defoon ne saak bu agresseur yi garde ñëw teg foofu la ndax ñoom it ubbi wuñ ko ñun ñii ñoo ko ubbi waaw ñun ñi te man amoon waa ubbi ko fekk sama responsable yi ma nekkal ñëwuñu en tant que bàjjen léegi bi nga ko ubbee nag ba gis ne doom la euh, ba yëg-yëg nga am ndax jigéen. ndax jigéen yëg-yëg bi ma am. ba léegi daf ma metti daf ma feebar. ndax yëg-yëg bi ba am doom ji jógul ne ko dama bëgg a juddu jogul ne ko yaay dama bëgg nga jur ma jógul ne ko papa dama bëgg nga jurma mu dem accoucher doom ju mat sëkk deux kilo cinq cent jël ko sànni ko mënoon na ko maye am na ñu fi toog amuñu doom bu ko maye woon ci sër yi baa mu maye ko ci euh, ci hôpitaux yi dina am ñu ko téye te xale bi dina dund ndax ëllëg xamuñu lu mu ñuy jëriñ ndax mën na doon président mën na doon député mën na doon maire mën na doon sax koo xam ne sëriñ la ëllëg mu tey te yal na ko yàlla feeñal loolu mën man yëg-yëg boobu ma ba ma am léegi ba léegi daf ma feebar. mu nekk lu metti nga ñëw en tant que bàjjenu gox am mu am ci sa gox nga fekk doom boo xamante ne nii dañu ko jur jur bu bees la. jur bu bees la ndax bi sage bi ñëwee xool ko placenta bi dindi wuñ ko. dagguñu ko ba pare ñu réaminer ko dóor ndax ñu maternité doom bu juddoo dañ lay di dinañ la tàpp def lu ne juutal pour doom ji jooy mais jooyul ba tey jooyul ñu tëral ko xool ko ci lañ ne kii dundul ñàkk dund boobu nag man moo metti moo metti waaw ndax jur doom sànni mu lay xool yaramam dawul dafa metti nga won ko ginnaaw mu jooy sa yaram dawul dafa metti xale bi yéen doo xiif yéen doo mar yaram sa yaramam dawul dafa metti waaye li ñuy ñaan ci sunu boroom moom mi mën te am kattan yàlla nañu feeñal ndaw si. kon ne xale bi ngeen koy ubbi fekk na mu ñàkk bakkanam ndax saag bi ñu ko takkoon ni loolu dafa étouffé. fekk na mu ñàkk bakkanam ndax saag la teg saag yi moom ñun jigéen ñi bu ñuy dem xew moom la ñaari mbubb moom la teg jël xale bi lal ci jippam jël xale bi tëral ci daal di fermeture su ko mayoon tuuti aération sax yàlla mën na def mu dund waaye sac bu nekk nilon nga jël ko dugal ci doom tëj ko daal koy fermeture loolu metti na metti na jupe bi la ko lëmasee oh. jupe bi la ko lëmasee Euh, kon en tant que bàjjen loolu day mel ni euh, xale bi de ki def loolu xale la parce que jupe la ko lëmase kon dafa mel ni moom mi nga xam ne mooy yaay xale bi boo demee moom tamit du mag yooyu mag parce que jupe la. du mag du mag xam naa ne ba bañ koy xool jeune lay doon walla kuy soog a am doom lay doon te li ma ci metti kenn xamul fu muy fajoo boo demee it mi ngi luyee appartement nekk fa moom rek kenn du ko xam kenn du ko gis waaye bu fekkonte ne dem na ci. centre de santé yi pour ñu faj ko dinañ ko laaj an sa doom dagguñu sax kuccu xale bi mu ngi mu ngi mi ngi ànd ak moom dagguñu sax kuccu bi deret ak lépp mu ñëw nag ba ci mbalit mi teg ko fa. mu nekk lu metti en tant que waajur nga xam ne jigéen ñaa ngi sëy lu te mënuñu fexe ba am doom moom yàlla may ko ko mu xale bi boo gisee sax image yi ngi nekk xale bu mag macha allah. xale bi koñ bi mu ko sànni am na plusieurs femmes yu fi nekk am problème ci ñàkk am doom sage-femme yi ko ñëw seet am na ci sage-femme boo xam ne da doon jooy ndax bëgg ñu may ko ko far xale bi dundul ci loolu nag en tant que euh, mair de famille man daf ma metti dem naa ba tëdd ma ne waa est-ce que man ki def lii ba ci sama koñ est-ce que du sama mbokk ndax dama tiit ndax lii mësuma ko gis mës naa gis rek ñu sànni doom waaye jël doom dugal rey ñëw teg teg ko foofu waa bu ko fi xaj yi fekkoon lekk ko day gën a metti yàlla sunu borom rek moo ñu ko teelawoon ndax borom kër gi mu dendal nee na moom romb na fi saag bi dem julli ji 5 heures wëlbatiku fekk ko fi fekk ko ñoom fees dell ndeke booba nit la moom it bi ñu ko waxee dane mësula gis doom ji ñu sànni da ko daan dégg waaye mi ngi koy soog a dégg tey. noonu mu nekk loo xam ne lu doy waar lool loola yaay lu doy waar la lu doy waar la. appel bi may lancé jigéen ñi lay lancé surtout les jeunes surtout jeet ju ndaw ji ku ci am doom di ko nëbb jaaduwul bu dee tubaab sax bootal bu dee naar bootal ndax fii lu ne am na fi mbamb mi deux jours lay doon liñ naan ñaari fan ñaari weer ñaari at te du yegg sax ñaari at ñaari fan lañ lay mbamb coow li ne kur dem ndax depuis jeudi ba léegi déggatoo ko ko wax ci koñ bi déggatoo ku ko wax waaye nag yàlla nañu ko yàlla niital yàlla nañu ko yàlla niital ndax yéen it lii ngeen def dafa baax ndax amuñu woon moyen pour lancer ko waaye yéen yéen a ngi koy jël di ko lancer léegi nit ñi di ko gis fu ñu tollu di ko gis kon yéen it yàlla na seen liggéey barkeel ndax nee naa leen journaliste bu amul woon kon dëkk bi da ngay dox rek ñu rey la waaye nag yàlla leen yàlla jàppale yokk seen grade yokk seen télé bi. voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen tey xew-xew bu tiis bu doy waar bi nga xam moom la leen indil fii nga xamante ne moom mooy yëmbal noox. 2A mu nekk loo xamante ne lu métti looloo fii nga xam ne moo nekkoon marché Salañ fi nga xam ne mooy marché yëpp sa jëkkër bi fi nga xam ne mooy quartier bi nga xamante ne mooy quartier Moussa Sall xew-xew bi fi am muy jur doom la lëmës ba mu jekk ñëw si ko ñu jàmbur teg ko fa jël ko def ko noonu ba mu étouffé ñàkk bakkanam te mënoon naa doone lu nekk ëllëg ñuy gën a conscientiser suñu mbokku jigéen ñi rek ndax yi fi yi fi xale la ñuy ñaax suñu moroom yi nga xamante ne ñoom ñooy jëf ji jëf ñuy moytu parce que doom moom nu mënti mel boo ko xasee ba jur ba mu dépassé yeen yi rek tëyeel ndax li gënoon métti yëpp weesu na wala boo tu mënulee yooyu itam nga dem seet suñu mel ni ñu mel ni suñu maman ñoom Ndella Madior wala nga yóbbu ko si sœur yi nga yóbbu ko feneen foo xamante ne ni dañ fay téye ay doom moo gën nga ñëw teg ko si mbalit euh, bàjjanu gox yi des fois boo tam ñu téye ko waaye li si gën daal mooy nga jox ko nit mu téye ko nga xam ne kii mu ngi dund yow da nga moo tax nga joxe waaye lépp moo gën rey ñëw teg si mbalit mu nekk loo xamante ne geste bu ñaaw la nit def ko kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla weer ki nga xam ne moom moo jëf-jëf ci bëccëgu ndara kaam ba ñu xam ne kii moom moo juróon doom ji sànni ko fi si marché yëpp sa jëkkër bi nga xamante ne moo am yëmbal Parcelles Nord 2A mu nekk xew-xew bu dooy waar lool lool lool di jaajëfal nag bàjjenu gox bi ma dalaloon nag chef de quartier bi ak fi ma demoon ci garage mécanicien yi ñoom ñëpp di jaajëfal équipe bi may àndal saa su nekk Cheikh Saad bu mu nekk ci caméra bi Paalo moom itam moom moo nekk ci oto bi Papis Mbaye ci coordination bi su lay si waaye Lamine Mbengue mooy monté rendez-vous incha allah maa di lay doon à 13 seen beneen émission xew-xew ci biir 7TV télé bi ñu nuru ba noppi